salaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax amaat mbégte jàkkaarloo waat ak yéen ci seen émission 7 voix du cœur sur la 7 TV ñu leen di nuyu di leen ziar foo leen mënti nekk rek di leen bàyyee xel di leen wax ne tey nag dañoo indi leen lu spécial ci seen émission 7 voix du muy recherche di yaay bu doom buy wër yaayam. doom buy wër euh, mën nañu ne entre guillemets euh, deuxième yaayam ndax nag euh, am na yaay bu ko toppatoo bu ko defar bu ko maanaam yar ba mu màgg jamono ji nag dafa nekk xale boo xam ne dañ ko déposé woon ci fi nga xam ne rek mooy école bi dend ak village SOS bu Kaolack dañ ko ñëwoon nag teg ko fa defar ko ba mu baax teg ko ay bagage toppatoo ko ba mu rafet bind ci benn nee na dafa soxor mënu euh, ci suuf tamit turam loo xam ne rek mu euh, doy waar la leen di wax nii euh, boobu ak léegi ça fait 32 ans xale boobu tey moom la ñu adopté ba tey ji muy wër ki nga xam ne rek mooy mère biologique am maanaam ki ko jur ndax na ki ko yar lépp lu yaay di jox doom rek jox na ko muy euh, ki nga xam ne rek euh, mooy madam Labio belge la di ngeen ko gis léegi léegi léegi laata loolu tamit di ngeen gis léegi suñu doom jooju nga xam ne mu ngi tudd euh, Jill Khalil Labio ñu tuddee ko turu belgium ak li nga xam ne rek mooy turu avocat bi nga xam ne moo aidé yaayam madame Labio pour mu euh, adopté ko histoire bu doy waar lay doon tey ci seen émission 7 voix du cœur laata loolu dañuy dalal yaayam euh, muy troisième yaayam ndax dafa doon suñ doom boo xam ne li mu regroupé dafa bëri ki nga xam ne ba mu nekkee xale ba léegi moom ak madam Labio bi ñoo nekk maanaam moom moo nekkoon nunoom ma bàyyi la rek soxna si nga daal di nuyoo daal di ñuy wax tur bi ak sant bi. waaw maa ngi leen di nuyu asalaamaaleykum. maaleykum tan koy génn ane ni yàlla na nekk tan ku jàmm li ñuy wër di yàlla na ci yàlla niital bu baax a baax man Adelaide laa tudd Adelaide Diouf mhm. laa tudd mhm. di nunu ci Gilles dama mhm. ko yore léegi ba depuis quatre ans bu mu amee quatre ans nag laa commencé nekk ak moom li yaayam wax yépp dëgg la waaye booba nekkuma woon ak moom. Mhm. nekkaguma woon ak ñoom. Mhm. bi ñu amee quatre yow bi nga ñëwee ci lañ la expliquer histoire bi ndax moom mi ngi euh, juddu 92. waaw yow yaa ngi fi ñëw 96 96 waaw waaw ci laa fi mhm. ñëw ak ñoom. nga nekk fi en 96 bi nga ñëwee ñu expliquer la histoire bi. Euh, bi ñu lay njëkk expliquer histoire bi moom moo la ko expliquer. waaw waaw naka naka naka la demee woon. ci yow yaram daw yaram. lu lu daw yaram daal mhm. la la nekkoon ci man 86 mhm. laa commencé moom ci moom bu xale bi 4 ans la moom ma nekkoon madame Labdou nag nekk ku baax mhm. téye xale bi comme comme doomam comme doomam bi mu jur ci ci biiram boo ko gisee sax danga naan kii doomam la waaw loolu naa nekkee woon ak ñoom nekk bu rafet daal nekkin bu rafet laata loolu dañuy dem euh, seetaani ki nga xam ne rek euh, mooy xale bi xool benn vidéo muy ki nga xam ne rek euh, mooy Jill Khalil Labyo ndax nag li mu bëgg mooy xam kan moo ko jur exactement loolu lay laajte comme ni mu ko waxee rek doon na loo xam ne tey jii c'est un peu compliqué ndax mi ngi am 32 ans ñu dem seetaani ko daal di soit léegi si waxtaan bi sur la 7TV ci seen émission 7 voix du cœur. que s'est-il passé en fait il y a ma question euh, est-ce que j'ai des frères et sœurs euh, est-ce que j'ai une famille je ne sais pas et euh, je me pose toutes ces questions aujourd'hui parce que je suis à l'aune d'en créer une et voilà donc j'aimerais te rencontrer te voir si possible je ne cherche pas d'argent je ne cherche pas à devenir le fils que tu n'as pas eu c'est pas le but j'ai une mère que j'aime et que je remercie de, de, de m'avoir accueilli dans sa famille. Mais euh, toi, je veux te rencontrer pour pouvoir euh, mettre euh, une, réponse à toutes ces questions que, je me pose. Pendant très longtemps, je n'ai pas cherché à savoir. mais aujourd'hui, j'aimerais avoir des réponses, j'aimerais chercher, j'aimerais pouvoir te trouver pour pouvoir mettre fin à toutes ces questions. Donc voilà, euh, j'espère pouvoir te trouver. Comme je l'ai dit, je suis pas à la recherche d'argent ou d'affection. Euh, j'en ai déjà eu. Euh, et ça, c'est grâce à toi, car euh, tu ne m'as pas abandonné n'importe où. Tu as fait ça bien. tu t'es occupé de moi. Et pour ça, je te remercie. Tu m'as donné cette chance de vivre et c'est incroyable. Merci beaucoup. donc voilà, j'aimerais juste pouvoir te rencontrer. sache que ce sera fait complètement anonymement. ce n'est pas... ce n'est pas un piège, il va rien se passer, ton nom ne sera jamais divulgué, c'est, ça sera entre toi et moi. Euh, voilà. Euh, j'espère que ce message trouvera euh, les oreilles la vision qu'ils doivent avoir. merci de euh, kon nag euh, gis ngeen ko kooku mooy ki nga xam ne rek mooy Jill ñu adopté woon ko euh, en 92 par madame Labio moom dinañ ko ñëw léegi ci moom mais laata loolu tata ah. Ada dañ lay bàyyi rek nga wax ñu ci naka nga gisee témoignage xale bi yaa ko yaa xam nga ko lan nga ñu mun a waxal ci moom ak kanamam mhm. ndax dafa am lu mu manqué wala lan nan la mel li mu manqué mooy li muy wër rek. Mhm. li mu manqué mooy li muy wër yaayam la manqué te moom lay wër am na yaay de. Mhm. ndax yaayam bi mu am nii gis nga ni dégg nga ni mu ko waxee am naa yaay mais sama yaay bi ma jur lay wër. Mhm. loolu moo ko manqué. yaayam bi toog nii nii amul lu mu deful ci moom amul lu mu dajul ci moom dugal na ko école. ay ay ay dara man dara mosu koo manqué daal fi ñu nekkoon noonu. Mm-hmm. fi ñu nekkoon nag fi ma nekkoon nag ñoom Sacré Cœur. Mm-hmm. man maa ko daan yóbbu école maa ko daan jëli maa ko daan sang maa ko daan jox mu lekk. njàngam naka la demee woon. njàngam loolu ak école. Mm. ak yaayam. waaw nekk nit ku weex. waaw mu nekk nit ku ñuul naka la demoon lan nga fàttaliku ci mu nekk nit ku weex doon njànge fi Nolivé Liberté 6 yaay ji da ko daan yóbbu ñu di dem di dem di dem di dem ba. ay moment ay jamono xam nga xale rek xale yi di ko kaañoo ne ko kii du sa yaay ndax sa yaay yow sa yaay yow dangaa ñuul te sa yaay nekk nit ko xees mm-hmm. xale bu waaw bu ko jël siwaan xale bi nag loolu xaw koo xaw koo jaxasoo xaw ko traumatisé ndaw si ci gannaaw gi ma madame yow mu jëleetu ko woon ndax ma abonné leen taxi ma di ko jëli taxi aller retour chaque jour. Mm-hmm. maa ko daan jëli ci taxi aller retour. Mm-hmm. moom jëleetu ko woon ci oto. ndax foog naa si bay sax ne. Mm-hmm. loolu euh, maanaam cofeel gi mu am. ci xale bi tax na ba xale bi bi mu commencé dund loolu école. ñu naan ko kii tubaab la yow nit ku ñuul nga jur la. da ko dindi dindi jëlee foofu. yóbbu ko ci école américaine. daf ko jëlee foofu yóbbu ko ci école américaine benn école bu nekk point E. école benn école américaine foofu tam ba mu fa demee. vraiment foofu ay presque ay ay américain rek nga ñoo fa nekkoon mhm. moom moo fa nekkoon nit bilingue lañ doon def bilingue lañ doon mhm. def doo xàmmee kuy américain noir ak américain blanc mhm. waaw doo doo doo doo ci xàmme doo leen ah, xàmme bu mu demee ci école boobu doon ci la commencé am stabilité ci amee commencé am stabilité ba mun a rangé wu nekk foofu ci jàmm Euh, depuis lors euh, ñu mu nekk ak yéen nga koy jëli école di ko indi ndax bi ñu koy wax loolu école naan ko kii juru la am na lu mu nu mu daan comporté woo bu ànd ak yow comporté wul déedéet bi mu ko bi mu def bi mu ko waxee lool bi ñu ko waxee lool moom amuloon benn changement ci yaayam de mhm. moom bu ñëwee yaayam rek yaay yaay ji rek lay wax moom xalaatuloon kii juruma kii jur na ma kii juruma dafa ñuul man ma nekk nit ku xees do moom man dama nekk nit ku ñuul moom mu nekk nit ku xees mhm. loolu yëpp defu ci woon kii de mhm. amuloon benn effet ci moom mhm. ni mu doon dundeek moom daal noonu la continuer woon noonu la continuer di dund ak moom waaw ci woon benn changement ci moom euh, kon loolu am na solo ba tax na rek euh, ñu dem xool ki nga xam ne mooy madame Labio euh, daal di koy xool ci témoignage yaay tubaab <laughs> comme on l'appelle au Sénégal ndax euh, comme ni mu ko tàmmee wax rek jil ci boppam am na beneen frère boo xam ne euh, daanaka comme yaay ci moom moom bi nga xam ne mooy madame Labi daa mos a bëgg doomu euh, Sénégal ba kooku sax bi mu ko nekkee ak moom adopté wu ko légalement mais jil la adopté légalement. mais kooku tamit yaay la ci moom. kooku itam mën naa cee seede. mooy ki magam ji ki wax noonu ku xale bu góor boobu wax noonu. Mm-hmm. Mm-hmm. mag la ci jil mm-hmm. waaw kooku moom dafa téye jil comme rakam. bu ak bàyyi. kooku tam téye madame Labio comme yaay. bu ko jur ci boppam. mais kooku tam yaay ji dafa gaañoo yàggul. dafa gaañoo mais moom bu ñëwee fii Sénégal madame Labio yaay ooy yaay. lépp lu ko jaaxal ak lépp loo xam ne xalaat na ko ci lu baax muy ci lu bon. kii lay oo mm-hmm. maanaam la yi lay oo moom kii lay wax moom lay waxtaanal mm-hmm. moo ko naan defal lii defal lii defal lii defal lii mm-hmm. moom tam dafa téye ko comme doomam adopté woo ko mais daf ko téye comme doom maanaam yàlla mayu ko doom mais dafa mos a bëgg yàlla mayu ko doom mais dafa mos a bëgg xale Jules ci boppam tam bëgg xale Jules dafa bëgg xale dafa bëgg xale toog bi bu bi mu ñëwee vacances bu mujjee bi mu ñëwee vacances bu demee eh, ci sama doom bi fii sama da daan ñëw fii sama doom bi xaar yàlla. Mm-hmm. sama doom bu jigéen. d' accord moom tamit daf ko doon mag sama mag rek la koy ooye mm-hmm. day naan naan kook sama mag la ba doomam yooyu doomam yu ndaw yooyu ñoom ibu yooyu noonu. day daan photo ak ñoom bugg a xale trop mm. waaw bu yendu foofu daal day mel ni foof këram la këram la amuloon benn gêne foofu il était à l'aise il était à mm-hmm. day yendu foofu mel ni foofu këram la mm-hmm. euh, ñu dem seeti euh, yaay tubaab mm-hmm. comme on l'appelle euh, madame Labio la maman de Djiel léegi léegi en témoignage ñu si seen émission 7 voix du cœur mm. sur la 7 TV donc en fait moi je venais au Sénégal depuis 77 je venais chaque année en vacances parce que j'avais des amis qui étaient établis en Belgique et qui sont rentrés au Sénégal. Donc lui était sénégalais, elle était française. Et euh, bon, c'était mes amis en Belgique. Je suis venue les voir en vacances. Ça m'a plu. Je suis revenue chaque année. Et à un moment donné, j'ai rencontré énormément de gens grâce à eux, notamment un avocat, Maître Diop, qui, euh, euh, à qui j'avais demandé si un jour je veux adopter, est-ce que tu penses que ce serait possible Il m'avait dit Tu m'envoies tous les documents et je m'occuperai de tout. Il s'est occupé de tout. Et euh, à partir du moment où j'ai envoyé les documents, six semaines après, il m'a appelé pour me dire Tu peux venir, c'est en ordre. Bon, c'était incroyablement rapide, parce que quand on a un projet d'enfant, au bout de six semaines, on n'en a pas un qui a cinq mois et demi. Mm-hmm. Donc, je suis venue, et là, y avait un tout petit souci, c'est qu'il n'y avait pas d'enfant disponible, je suis revenue un mois après, et là, on m'a attribué euh, C'était à la pouponnière de la Médina. de toute la, la toute la procédure a été faite au tribunal, de, au tribunal régional de Dakar. Mm-hmm. En fait, l'enfant a été euh, déposé à Kaolek, mais il n'y avait pas, à l'époque, il n'y de pouponnière au village SOS de Kaolek. Donc au bout de deux, trois jours, il a été transféré, sur ordonnance du juge, il a été transféré à Dakar. Mm-hmm. et, euh, à Dakar, à la pouponnière. Quand vous allez là il y avait d'autres enfants Là-bas, le, le, le potentiel d'enfants, à l'époque, était de 40 enfants. Normalement, la pouponnière s'occupe d'enfants dont la mère est morte en couche, mais n'a pas... Euh, Bon, les maires n'habitent Dakar, ce sont souvent des gens qui viennent de province et dont les, les, familles ne peuvent pas garantir la stérilisation des biberons et tout en fait, à l'époque, ils les gardaient jusqu'à 10 mois. Euh, ils les, ils les vaccinaient, tous les vaccins. Et au bout de dix mois, on faisait le vaccin de la rougeole. Et là, les, parents, la famille venaient rechercher l'enfant. Mais ils venaient les visiter régulièrement. Ce n'étaient pas des enfants qui étaient laissés à eux-mêmes. Ils étaient pris en charge. ce sont des religieuses espagnoles qui s'occupaient de cette pouponnière. Mais elles faisaient tout sur base d'instructions du tribunal. Elles n'avaient, aucune euh, possibilité de prendre une décision de, de, laisser partir ou de faire venir un enfant. On ne choisit pas. C'est le tribunal qui attribue un enfant. C'est impossible Parce que sur base de quels critères que... la seule chose que j'avais donné deux prénoms pour un petit garçon et j'avais donné deux prénoms pour une petite fille. si c'était un petit garçon, j'avais choisi Gilles comme prénom parce que chez nous, on ne donne pas des prénoms en référence à quelqu'un, alors qu'ici, prénom et il est de l'avocat Khali. Khali. Donc il s'appelle Gilles Khali Labiou. le, et euh, il, a fait toute la procédure et moi, quand je suis venue le chercher, on m'a dit c'est celui-là. Parce que, en fait, j'étais venue un mois avant, quand j'étais venue, j'avais été visiter la pouponnière et, les religieuses m'avaient dit il y a enfants, dans les enfants, il y a trois enfants adoptables, mais on ne peut pas vous dire lesquels ce sont. D'accord euh, après, je suis revenue Et il y a quelqu'un qui, qui l'a, il, il, était en train de crapahuter sur un, un grand tapis de jeu comme ça. Et euh, enfin, il, ne marchait pas. Hein, donc, euh, et, et euh, il avait cinq mois et demi. Il avait, c'était cinq mois et demi après l'abandon. Mm-hmm. Mais il était sans doute, il avait peut-être six mois, sept mois. Mm-hmm. Hein. Et euh, et donc je l'ai vu, donc la religieuse l'a pris et, et elle m'a dit, vous avez beaucoup de chance parce qu'il est très beau, il est très intelligent. Moi, il avait l'air un peu stupide, je dois dire honnêtement, pour dire les choses comme ça. Ouais. J'ai dit, je me suis dit, mais franchement. Et en fait, il était éteint. Il était éteint. À part... Donc je l'ai vu, je suis revenu le lendemain matin, je suis revenu le lendemain après-midi. Et le lendemain après-midi, j'ai dit aux religieuses, ben, je, je, vais le prendre, je vais l'amener avec moi maintenant. Et je veux dire, cette nuit-là, j'ai quasi pas dormi. Quoi. Parce que je me suis dit, bon, j'étais célibataire, j'avais un excellent job, mais j'avais pas de charge.

Lundi dernier, c'était le 40e jour de, ce, de, de, son départ. Donc, elle vient de partir et elle a fait, elle nous a reçus, elle l'a accueillie, elle avait plusieurs enfants. Donc, à partir du moment où il a quitté la pouponnière, il n'a pas quitté une paire de bras, il est passé d'une paire de bras, une paire de bras, Et on aurait dit qu'on lui enlevait des voiles du visage. En quelques jours, il était rayonnant, souriant. Euh, il n'avait pas été assez choyé. Et. Euh, Et voilà, bon, donc euh, moi j'ai été très vite rassurée. On est rentré en Belgique. Au premier temps, euh, j'avais des congés, de maternité, mhm. parce qu'en Belgique c'est comme ça. Mhm. Et euh, donc pendant trois mois, je n'ai pas travaillé, je me suis occupée de lui. Donc à ce moment-là, le lien se fait. il était, tellement facile, En plus, c'est un enfant qui avait été. Euh, il, avait, il avait, des horaires, quoi. il allait se coucher euh, à la pouponnière, c'était pas la peine de pleurer à, à 2 heures du matin pour avoir un biberon, il n'y avait pas de biberon. Hein. Moi, je pense qu'en 3 ans, il a dû me réveiller 4 fois la nuit, hein, pas plus. Hein. Donc je pense à des gens dont les gosses crient toutes les nuits, ben non, lui, jamais, jamais, jamais. Non, il était très, très, très, très facile, toujours souriant. Vous allez le sortir de, de son lit le matin, un sourire jusque derrière les oreilles. Non, il a, vraiment, je ne sais pas s'il l'a fait exprès, mais il a fait tout ce qu'il fallait pour, euh, pour, pour que, ça pour, que pour, moi, ça soit vraiment... Non, ça a été très facile. Mm -hmm. Quelque part dans son existence, il y a un trou. Mm -hmm. Et le trou, c'est le manque de connaissances. Il ne sait pas qui sont ses parents d'origine. Mm -hmm. Il... Bon, ça, peut-être, je ne sais pas si c'est ça qui est tellement important pour lui. Je pense que le plus important pour lui, savoir pourquoi il a été abandonné. Ça, c'est le, ça, ça c'est vraiment pourquoi. Parce que c'est comme si un peu ils se sentaient coupables d'avoir été abandonnés. Bon, mm. alors que il n'y est pour rien, mm. Mais, mais euh, les, enfants, les enfants pensent souvent qu'ils sont la cause du divorce de leurs parents, la cause de tous les maux des adultes. En fait, ils ne sont pour rien. Je pense que, mm. enfin, de ce que je connais, de de, de la société au Sénégal, il n'était pas nouveau-né. Mm-hmm. Donc je pense que si elle en avait vraiment pas voulu, elle l'aurait euh, lâché euh, la ne serait pas rentrée chez elle. Elle aurait peut-être caché la grossesse. Elle ne serait pas rentrée chez elle. Elle aurait jamais laissé son nom. Or, elle a laissé un petit papier en disant son père est méchant, je ne peux pas le garder. J'ai jamais vu ce papier. Et apparemment, il y avait son nom, le nom de l'enfant et la date de naissance de l'enfant. Et le nom qui était sur le papier, c'est Astou. Ouais. Et l'enfant était nommé Mansour. et du même nom de famille que, que la maman. Mhm. Et il y avait la date de naissance, mais la personne qui m'a dit qu'elle a été la première à soulever l'enfant quand on l'a voilà c'est ça. Mhm. Elle euh, elle se souvient pas de la date de naissance, mais mhm. elle se souvenait des noms et donc c'est elle qui me les a communiqués. je lui lui ai jamais rien caché. déjà, je suis blanche, il est noir, donc vraiment, à moins d'avoir beaucoup d'imagination, mais, je ne lui ai jamais caché, jamais caché. Mmh. Et, euh, et, en fait, ça lui a permis de vivre une vie assez, euh, assez sereine quand même. Comme enfant, il n'avait pas de problème, il n'avait pas de problème. Mmh. Moi, je, vers 12, 13, 14 ans, je ne sais plus exactement à quelle période, je lui ai dit, est-ce que tu veux qu'on recherche ta maman biologique ben, je lui avais dit, Moi, j'étais persuadée qu'il qu était abandonné depuis la naissance. Mmh. Je lui avais dit, ça ne sera pas facile. Mais... Euh, Mais ce n'est qu'il y a 4-5 ans que j'ai appris qu'il avait en, en, fait plusieurs semaines. Donc je me suis dit, il y a des gens qui savent. Sa mère, a laissé son nom, elle doit avoir envie de savoir ce qu'il est devenu. Mm. On, ne peut pas, on ne peut pas faire rentrer un enfant dans une maison, le garder quinze jours, euh, mois, euh, sans que les voisins soient au courant, sans que, mm. sans que cet pour avoir à manger, qu'il ait une petite colique, enfin quelque chose il est là, quoi. Il ah vit. À 13 ans, il ne voulait pas savoir. Et eh bien maintenant, il est en âge lui-même de fonder une famille. Et pour ça, il a besoin de. Enfin, ça serait mieux s'il pouvait remplir la case qui manque, quoi. Savoir qui, de qui il est l'enfant mm. biologique, son père, sa mère, éventuellement son père, mm-hmm. et, euh, et qu'est-ce qui s'est passé pour, qu pour que sa mère soit obligée de l'abandonner. Moi, je pense qu'elle ne voulait pas s'en séparer, mm-hmm. parce qu'il était bien soigné, il était bien nourri, il y avait des vêtements de rechange, il était propre, il a été déposé sur une couverture, mm-hmm. elle ne l'a pas, entre guillemets, jeté. Elle savait qu'il serait pris en charge. Elle a peut-être fait des kilomètres, elle est peut-être venue de 20 kilomètres pour déposer cet enfant. à 500 mètres, mais à mon avis, elle était loin. Quoi. Mm. Et elle est venue, et, mais elle ne voulait pas s'en séparer. En fait, moi, j'ai deux, deux appels. Un appel à la maman. Mm. Euh, Madame, vous avez fait à l'époque tout ce que vous pouviez pour mettre cet enfant en sécurité. Mm. Vous lui avez garanti un une forme d'avenir dont vous ne saviez pas ce qu'elle serait, mais vous étiez sûr qu que, que, ça pouvait être mieux que ce que vous, à l'époque, vous pouviez lui proposer. Mm -hmm. La dernière chose que vous pouvez faire pour lui,

de permettre à un enfant de, de poursuivre son existence mmh. dans des meilleures conditions, avec plus de sérénité, il va bien. Mhm. Mais ça, c'est vraiment un trou béant dans, dans, dans, dans sa tête. Qui, oui. Et il y a des gens qui savent, et simplement en lui expliquant, euh, lui, il, il, il, dit franchement, il ne cherche pas à entrer par force dans une famille, il veut avoir des réponses à ces questions. Lui, quand on lui a demandé qu'est-ce que tu veux, il a dit moi je veux savoir. Mm -hmm. C'est tout ce qu'il veut. Et il y a des gens qui savent. Mm -hmm. C'est sûr et certain qu'il y a des gens qui savent. Mm -hmm. Donc si ces gens-là pouvaient se manifester, lui permettre de rentrer en contact avec cette maman, j'espère qu'elle est vivante, j'espère qu'elle est vivante. Mhm. Euh, elle a peut-être quitté le Sénégal, elle est peut-être plus dans la région. Mhm. Bon, j'ai fait beaucoup de démarches, mais euh, j'ai obtenu, à part son nom, je n'ai rien obtenu. Donc, euh, euh, mais je suis sûre qu'il y a des gens qui savent. Je suis sûre, sûre, sûre. Et si ces gens-là pouvaient se manifester, ça l'aiderait beaucoup. Ça s'estompe un peu parfois dans le. En fait, c'était un enfant très souriant. Il était très marrant. Il était très drôle. Bon, moi, je ne suis pas triste non plus, il faut dire. Donc, on, les chiens ne font pas des chats. Donc, même si c'est par transmission, mm. mais bon, il était très amusant, il était très sportif, il était, euh, il était très sociable, très, très, très. Il a énormément d'amis. C'est quelqu'un. Les gens l'aiment naturellement. Quand, quand, quand j'ai adopté, je savais que que j'héritais d'une situation dont je n'étais pas la, maître, la maîtresse, mais, mais, je savais que s'il avait été abandonné, c'est qu'il y avait un problème. Ce que je savais, c'est qu'un jour la question se poserait. Mm-hmm. petit n'a pas voulu savoir. Quand je lui ai posé la question de savoir est-ce que tu veux qu'on cherche, il m'a dit non. Euh, mais maintenant, il a 32 ans, il voudrait fonder une famille et, et il a besoin des, soucis qui auraient été différents à cause de ne pense pas. Mm il y a un problème. Oui, mhm. aujourd'hui, il ne mhm. cherche pas d'argent, il ne il, ne cherche pas à lui nuire, il ne cherche pas à la il ne veut pas la médiatiser, lui-même ne veut pas être médiatisé. Mhm. Euh, il a fait cette petite vidéo que, vous allez sans doute diffuser et euh, Moi, je sais que dans cette vidéo, il n'est pas très à l'aise. Il, ne voulait pas la faire. mais je dis, Gilles, on fait tout ça pour essayer. Parce que peut-être il ressemble à quelqu'un. Peut-être euh, il y a des gens qui vont dire, mais finalement, il a un air de famille avec telle ou telle personne. peut-être, peut-être c'est un hasard, peut-être c'est une réalité. il faut tout, taper à toutes les portes. ce que je fais, ce sont des bouteilles à la mer. C'est dans l'espoir qu'elle arrive quelqu'un prenne le billet et bon, téléphone, euh, voilà quoi. Moi, je, je, peux, ah, mais après, si vous voulez communiquer mon numéro de téléphone, j'ai fait une page Facebook. Voilà, j'ai fait une page Facebook aussi, et euh, j'ai écrit un petit livre. Et bon, ce livre est disponible en PDF. Euh, et bon, les gens qui me le demandent, je leur envoie. Quoi. Et ils peuvent le distribuer autant qu'ils veulent parce que voilà. Voilà. Donc c'est un, un, tout petit livre euh, euh, bon, qui explique un peu la, la, la démarche que j'ai eue pour, pour l'adopter mmh. et euh, bon, qui je suis et, bon, et com comment ça s'est passé. Mmh. Mais bon, voilà, c est, c est, moi j'appelle ça un livre prétexte. Ce pas un roman, ce pas, une biographie, c'est une demande en fait. C'est une demande, oui. jërëjëf kon nag dégg nañ ko muy euh, belge ñëw nag am fi nag ay connaissances yoo xam ne mu ngi leen xamale woon Belgique ñu nekk fi Sénégal looloo ko indi Sénégal waaye bu mu ñëwee ba tey Euh, mu yàgg lool euh, mu am fi doom am na fi sax daanaka ñaari doom euh, mais Jill moom la adopté légalement muy xale boo xam ne après bi mu amee ay 13 14 ans. comme ni mu ko waxee ci la dem ak moom Belgique. xale bi daanaka yaay tubaab la am. mais moom tamit tubaab la. ndax gis ngeen ko léegi ci témoignage yi. lan nga ñuy wax ci femme bi nga xam ne macha allah liñ naan am doom maanaam taxut a doon yaay. yenn saay doo am doom mais dangay doon yaay force loolu boo ko dal nag mhm. amour bi mu am amour bi mu am ci Gilles nit jur na doom sax te amul amul boobu ci ci doomam mhm. loolu moom mun naa ko ko seddal ci Gilles amour bi mu am ci Gilles ak ni mu téyee Gilles ak Gilles nga xam ne manquéwul dara wax dëgg yàlla da koo téye téye bu rafet la ko téye mhm. da ko téye comme doom bu mu jur ci boppam la ko téye loolu lépp nga dund ko ak moom euh, ndax des fois comme xale fi mu daan jaar def ay bêtises def yenn kii naka la ko daan dundee ak moom waaw du ñàkk sax xale moom am na âge ba nga xam ne rek âge la même ñun suñu doom yi sax jaar nañ ci ak ñoom mm-hmm. am na âge nga xam ne doo too mun a supporter xale mais di nga comprendre ne bi mu ci âge bi la rek ngay waxtaan ak moom di ko jubbanti di nga war a def jaaral fii jaaral fii loolu moom mm-hmm. yaay yépp a ci jaar mm-hmm. naka la ko dundee moom. naka la ko dundee ah comme yaay yëpp. comme yaay yëpp comme yaay yëpp. Mm-hmm. comme yaay yëpp la ko dund. Mhm. Euh, kon nag euh, ba tey ci témoignage ndax nag dafa doon histoire boo xam ne euh, bu bu doy la bu daw yaram mhm. jil mi ngeen di dégg léegi en témoignage muy jil xale lab Labio doon na xale mais ñi mu regroupé ñoo bëri. Mhm. yow tey jii nekkoon nga nunoom. am nañu ñeneen ak ñeneen ak ñeneen. dañuy dem xooli témoignage yi lu émission bi di gën a dem rek mu lay won nekk benn xale la bu yaayam nekkoon ci li nga. xam ne mooy détresse euh, maanaam njàkkare defar ko ba mu baax toppatoo ko ba mu baax ñëw déposer ko ci benn école. Mhm. boo xam ne jege na SOS kaw euh, village SOS. Mhm. bu Kaolack euh, waaye depuis loo xale bi li mu réunir moo bëri. Mhm. moom adopté na xale bi mais. bàyyiwul ñi nga xam ne ñoo ko njëkkee euh, gis maanaam bi bi ko yaayam tegee mhm. ñi ko retrouver ba moom mu mën ko gis ci fi nga xam ne rek mooy pouponnière bi ba tax na dafa def recherche def recherche ba mën a xam mhm. kan moo gis xale bi fi ñu ko déposé woon euh, elle se nomme euh, Rokhaya Gaye madame Diop dañ koy dem xooli léegi ci témoignage ma nga fële ca Kaolack ndax moom moo doon liggéey ci école boobu ñu dem seetaan ko daal soit léegi léegi ci histoire bi ndax yaakaar naa ne histoire bi en grosso moom moo ñu koy expliquer léegi léegi lay doon sur la 7 TV euh, ci seen émission 7 voix du cœur. asalaamaaleykum wa rahmatulah man de maa ngi tudd Roqeetu Guèye may wax ma dem Diop ma nekkoon nag ci benn école doon fa liggéey def naa fa 32 ans école élémentaire Herman Mayina nekk ci biir village d'enfants SOS léegi nag moo fa nekkee di liggéey mu am benn moment. dama xamatul année bi nag ndax quatre vingt onze wala quatre vingt waaye daal fàttaliku naa ni période boobu maa ngi doon maa ngi yoroon sama benn doom bu juddu quatre vingt dix ba ma toogee nag jour boobu fekk na nekk woon jour de classe maanaam xale yi jànguñu woon école ba daal wéetoon na ma toog ba gardien bi ñëw ni ma roqee kaay seet ma ne ko lu may seet lan la mu ne ma kaay rek ma topp ci gannaaw ñu dem ci wetu buntu loge buntu loge amoon na mur bu séparé bunt bi ak benn perron moom saa yu xëyaan gardien da koy bale ba mu set nettoyé ko soog a dem ca bloc sanitaire ya defar ko jour boobu nag école bi wéet na mu ñëw fekk ñu ngi lalal xale bi ba mu baax tëral ko jël benn mbuus bu def ay yéreem teg ci wetam man tam ma daal ne ko ah wilaan kii nit la mu ne ma nit la kay man tam ma ne bisimilah rahmaani rahiim daal di ko yëkk ci mu nekk bégo bu rafet sax mu ko solal ba mu baax laalal ko sër yu set seet fu set la set fu set la seetit lalal ko fattaral ko mais ma daal di ko yëkkati ñu dem ma nekk ak moom ci salle d'attente bi voilà yendoog moom ma daal di aviser sama directeur sama jabaru directeur bi ñoo ñu toog ensemble su ma amee liggéey jox ko mu téye ma def sama liggéey mu moom itamit mu demaat ci appart ci logement am def liggéeyam noonu lañ nekkee ma avisé directeur village d'enfants SOS bi nga xamee nag nekk na nag ak ñun pendant ay heure nekk na ak ñun ay heure jooyul réclamewul xiif daal loolu mooy wane ne xëy na yaay ji nàmpal na ko ba mu suur bala ma ko fay teg ah léegi nag bi nga xamee ne xiif na euh, waa directeur village bi yónnee ci centre médical bi ndax SOS moom structure la ci Kaolack boo xamante ni am na ñetti ñetti structure am na centre médical am na village d'enfants am na école élémentaire léegi nag ñu daal di ñuy yónnee biberon ñu ñu jox ko mu nàmp ba suur mu mu mu mu ko couche daldi daal di ko kii nag mu nekk bébé bu adorable mooy fóon rek naan bébé bi de jooy sax def naa ko ne bébé bi de yaayam sànni ko kii de dafa dénkaane doomam day sànn ah mbuus ma nag ma nga fa doon tege ak ay yére mu bind benn not dugal ci biir mbuus mi ñu tekk yépp xool liir not bi placé ko denc noonu lafa fa demee ah boobaa léegi nag maa ngi jokkoo ak eh, xale boobu waaw la suite mooy période boobu eh, village d'enfants SOS daawul jël bébé ndax bébé bi boobu biñ koy ramassé daal xam naa war na am ay kat ou cinq mois yooyu daal suma fàttewul ndax dafa yàgg léegi nag ci le directeur village bi acheminé le bébé ci pouponnière bu nekk dakaar waaw euh, ci pouponnière boobu nag la ko benn tubaab ñëw jël yóbbu ko ba fi mu nekk nii xale bi màgg na fa tabaarakàllaa yaayam ji ko adopté woon tubaab la ñëw na fi ñëwati fi man mi seet si na mu ba ci sama kër ndax dama dégg mu def benn intervention ci euh, benn rajo bu nekk Kaolack ma daldi oote oote wax leen expliquer ni bébé bi bañ ko fa tegee man mii maa ko jëkk ci la daldi daw ñëw ànd ak waa rajo yi ñëw ñu toog waxtaan depuis lool su ñëwee Sénégal rek foog mu jaar fii Kaolack ñëw nuyu ma waaye nag wax dëgg yàlla boobaak léegi bu fekkee yaayam ngi dund na xam ni moom doomam mi ngi koy wër doomam mi ngi koy wër te doomam gëm na ni moom yaay ji ko jur sànniwu ko xëy na ay circonstances ay jafe-jafe rek moo taxoon mu teg ko foofu tegu dénkaane kon nag yaay ji bu fekkee dégg na sama wax man fi mu ne nii mag laate lii may wax lépp dëgg la lépp dëgg la yàlla def na nag gardien boobu gaañu na jabaru directeur bi gaañu na directeur ba fa newoon gaañu la waaye nag am na ay seede yu fi des ba tey ndax am na yenn jàngalekat yoo xam ne dund nañ ko maanaam rendre nañ leen ko compte te ñoom ñoo ngi fi macha allah fa tabarakallah kon nag maa ngi ñaan yàlla bu fekkee ni yaay jooju mu ngi ñuy dégg mi ngi dund mi ngi ñuy dégg na xam ne doomam mi ngi koy wër te doomam bëgg na ko gis doomam bëgg na ko bëgg na ko fóon bëgg na ko seere ci dënnam loolu moom bëgg na ko bëgg goo xamante ni kenn xamul mu toll loolu moo taxoon ma ne naa ñëw daal di témoigner lii nga xam ne dund naa ko ca jamono yooyu te it lépp di dëgg di ñaan na yàlla jàppale xale bi ba mu yaayam gis ba mu gis yaayam te yaayam it bu mu am kersay ñëw gis doomam doomam xam xoolewu ko benn jafe-jafe xoolewu ko benn benn benn mbañeel mbëggeel gu mat sëkk la la gis ci moom kon nag asalaamaaleykum wa rahmatullah waaw comme ni niñ ko gisee rek kooku mooy Rokhaya Gaye suñ tata di madame Diop euh, muy lu yàgg na 92 91 comme ni mu ko waxee rek mais euh, xam naa 92 lay doon ndax ci la daam bi adopté xale bi te bañ ko fay déposé lu ndaw la euh, maanaam bébé la comme ni mu ko waxee rek euh, kii day sàndiwul boo demee dafa dénkaane ndax nag nit yenn saa mu nekk ci situation ba nga xam ne amaana du ko mun a expliquer kenn amaana yaay mooy xam li ci nekk lépp lépp lépp lépp li mu bind leer na papam dafa soxo trop mënuma ko téye kon kooku xam naa tey euh, ba muy bàyyi foofu xale bi euh, am na lu ko metti ndax nag laata madam euh, Diop bi am na professeur bu taxaw gis na yaayu xale bi boobu mi ngi def cours mais taxaw na seen ko mu téye xale bi lu yàgg xool ko xool xool maanaam mel ni comme si mi ngi teg mais malgré ah. mu ngi fiy bàyyi doomam mais malgré mais comme boobu moom xamul lan la te moom mu ngi doon def cours mi ngi concentré wu ci coursam bi affaire bi amee ba ñu gis xale bi ci la xelam soog a ñëw ci yaay boobu ak condition yi mu tegee doom ji kon loolu taada yaakaar naa day wane ne tey ñépp xam nañu ne yaay ji ba mu koy déposé ci li nga xam ne rek mooy côté village d'enfants SOS bu kaw Kaolack euh, xam naa sûrement euh, nekkul woon lu ko gën nekkul lu ko gën a ndax li ñuy wax rek doom sidit la yaay bu teg doomam ci yenn conditions yi rek amaana du ko gënal dafa toppatoo ba toppatoo fi mu war a teg xale bi kon yaa quelque chose euh, du nag euh, question yi nga xam ne rek moom la doomam di posé wu quoi ñu teg ko foofu lan moo xew ak lan ak lan ak lan nga xam ne kenn mënu ci euh, leeral ku dul yaay ji ba tax na rek ñu ngi koy tàllal loxo du lu ñuy siwal du lu ñuy wax du lu ñuy wone du lu ñuy filmer ñu ngi koy siwal nii di ko filmer parce que dañuy wut ku yaayam waaye tey jii bu ñu gisoon yaayam du loo xam ne dañ koy tegaat ci télé bi naan kii mooy yaayam ndax xamuñu amaat na jëkkër xamuñu amaat na famille xamuñu amaat na ay doom loolu yëpp xamuñu ci dara yooyu yëpp dañ koy protéger te nag euh, bàyyil nañu bàyyi lu ñu lu bëri mais lim ñu bàyyi comme indice mooy ku toppatoo doomam la ku bëgg doomam la ba tax na doomam comme ci témoignage bi wax na ko amee lu ko benn en euh, ñu bàyyi la rek nga tontu ci li Tataaro Kay Guèye wax Tataaro Kay Guèye kay li mu wax wax na lépp mhm. ndax moom comme nee na yaay ji sànniwul dafa mhm. dénkaane mhm. moo ko njëkk a yëkkati moo ko njëkk a yëkkati sànniwul dafa dénkaane kon nag euh, ah ñu ngi ñaan rek comme ni nga ko dénkaanee ñu ngi naan yaayam bu fekkee ne mu ngi ñuy dégg mu ñëw uy si doomam yaayam mi ngi tudd asu waaw ci fay bi asu lañ ci bind waaw asu fekkee mu fekkee mu ñuy dégg daal mu ñëw uy si doomam mhm. waaw loolu euh, ndax euh, madame Labio li mu wax euh, daanaka am na village bu jege fi nga xam ne rek mooy village SOS yi bu village d'enfants SOS bu Kaolack muy Bongré Bongré je sais pas foofu la jóge jógewu fa kenn mënuñu ah. cee leeralal kenn xamul mënuñu cee wax dara dañuy seetaani tamit suñu yaay euh, Awa Sène Sarr di yaay ju ñu respecté di yaay ju ñu mos a bëgg ah. ñu dem seetaan ko ci témoignage ndax moom it ah. xarit la ci madame Labio xale bi tamit réunir la leen ba tey moom bokk na ci histoire bi ba tax na euh, fa mu nekk noonu ñu ngi koy nuyu bu baax a baax yaay booy mos laa bëgg lool lool lool euh, sopp la lool ñu bàyyi la daal di seetaan sa témoignage léegi léegi lay doon sur la 7TV ci seen émission 7 ci janvier 1992 dafa amoon benn liir boo xam ne dañu ko bàyyi woon ci école bi nekk ci booru village euh, enfant SOS bu Kaolack ci at boobu 1992 boobu ci mois de juin ba ci la ko sama benn xarit bu tudd Françoise adopté kon euh, depuis juillet 1992 xale boobu nga xam ni màgg na tey mu ngi dund foofu ci Belgique foofu la nekk moom na xale bi xam na lan moo taxoon yaayam ji ko adopté adopté ko wax na ko ko wax na ko itam lépp li nga xam ne daal am xamoon na ko li nga xam ne nag euh, yaay ji xamu ko te moom itam xale bi xamu ko mooy euh, kan mooy yaayam kan mooy baayam kan mooy ay mbokkam information yi nga xam ne nag euh, yaay ji xam na ko jottali ko xale bi lu ndaw a ndaw la ndax xamul lu bari daal xam na fan lañ ko bàyyi woon ci ban dat la xam ne itam ne xale boobu dañ ko yóbbu tamit ci pouponnière euh, Médina bi nekk euh, ci route Wakam fan yi nga xam ne daal gis nañu ko foofu lañ ko yóbbu xam ne itam ne bi ñu ko bàyyee tam foofu ñu ko bàyyi woon ci école boobu ci boru village SOS bi wax dëgg yàlla niñ ko fekke daal xam nañ ni daal traité nañ ko bu baax ndax amoon na ay semaine amoon na daal entre ñaar ba ci juróom benn semaine te ndax euh, boo ko xooloon dafa setoon we ci ñu solo ko solo bu rafet vraiment boo gisee xale bi daal li nga xam ne xale bi daal xale bu ñu toppatoo la loolu moom dafa wane rek ne yaayam jooju ko juróon kooku ba mu koy teg foofu vraiment bëggoon na daal ndeysaan xale boobu ñu téyel ko ko bu baax a baax xale boobu nag euh, ci moom ni mu gisee ak ni yaayam ji ko adopté gisee xam na ne daal xale bu ñu bëggoon la ndax euh, dañ ko defaroon ba mu baax et pour yaay nag di mën a tàkkali ko ak doomam xam naa daal ay circonstances yu méttee metti rek loolu moo tax xale boobu nag tey am na fanweeri at ak benn te daal ndeysaan bëgg na xam daal kan mooy yaayam kan mooy waajuram xam itam ndax am na ay rakk wala am na ay mag donc lii tey sama xarit bi di François jóg euh, di ko dox ba ma dugal ci sama kàddu dafa nekk rek euh, li nga xam ne nit ku nekk bu nga xam fi nga soqi ko nit ku nekk bu nga xam fi nga jóge nit ku nekk donte dañ la adopté te ki la adopté bugg na la jox na la amur bu mat sëkk bugg nga xam kan mooy sa waajur loolu rek moo tax ñoom ñu jóg di seet moom nag euh, nee na xamul yaayam jooju fu mu nekk ak euh, nan la nekkee ndax am na yeneeni doom loolu lépp daal ndeysaan xale bi daal la ko bëgg a xam te xam na ni moom ni mu sampoo ci xolu yaayam jooju noonu la doom jii di wër yaayam sampoo ci xolu yaayam Euh, ñoom nag nee nañu lii dañu bëgg rek dajeek moom xale boobu dafa bëgg dajeek yaayam jooju dafa bëgg ñaari yaayam yi mën a daje ndax kenn ku nekk daal danga ko jox daal lu mat sëkk Françoise nag sama xarit la xam naa ko boobaak léegi daal mat na fukki at ëpp na ko sax xam naa itam xale bi xam naa itam doomam jooju donc maa ngi gërëm di sant képp koo xam ne daal jàppale nañu dimbalante ñu ngir ñu mën a gisanteeg yaay jooju ci dans la discrétion daal xale bi bi mu ko fay teg euh, nekkul liir noonu donc euh, am na certainement ay nit ñoo xam ne gisoon nañu ko xamoon nañu ko peut-être que ngénte woon nañu ko sax donc ci biir 17 million sénégalais yi ñu nekk ndeysaan ñun daal euh, François ci boppam ak doomam jooju kenn rek lañ ci bëgg ji gis mu yaayu xale bi mu xam ne doomam ji Gilles lañu ko tudde madame Labio sama xarit la euh, nit la koo xam ne Sénégal daf ko daf ko yàgg bëgg ñoon ñu nga xamante ci ay années quatre-vingt yooyu waaw ah, mu doon ñëw seet ci sama bàjjen ñu xaritoo boobu ba léegi nag saa yu ñëwee Sénégal lañuy gisee. Mhm. toujours ah, nit la koo xam ne depuis nag vingt bi ñu ko xamee ba léegi dafa bëggoon am doomu sénégalais. Mhm. man ñoom noonu la ko doon waxee. waaw mënuma am doom waaye dinaa adopté doom sénégalais. ba may foo ak moom sax di ko ne kaay jël ci sama doom yi kenn nag mu ne ma déedéet <laughs> man damay adopté koo xam ne sama doom lay doon. Ah, yàlla dimbale ko ne nag bi muy duggalee kayitam yi ak yépp ah, yàlla wërsëgalee ko xale bu bébé bu góor. Ah, kooku tamit bi mu ko jotee ba léegi xaritam bi ko dimbale ko ni mu ko waxee avocat bi. waaw ah, bi mu jotee xale bi rek dafa ñëw mën na ma Binta mën naa mën na ma ah, am naa doom te comme yéen Sénégal fii ku am doom waaw bu amee semaine dañuy ngénte mhm. il faut ñu ngénte sama doom bi mhm. ma koy ne ay Françoise ngénte mën na ma ah waaw dañuy ngénte comme ni ngeen di ngéntee seen doom yi ma la ko incha allah yàlla def nag kër avocat bi wax dëgg yàlla ñu def ko ngénte bu rëy sax mhm. waaw ñun ñëpp ñu nga fa woon lépp la ñu defar ngénte bi dara manqué wu ci woon waaw ah, ba ci ginnaaw waaw mu tuddee ko waaw mu tuddee ko xalil avocat bi mm-hmm. waa jabaru avocat bi tamit nag nekkoon ku baax waaw ah, ñoo ngi koy ñaanal yàlla xaree ko àjjana ndax bi mu jógee fii yàggul torop waa yàggul mm-hmm. Mm-hmm. ñoo ngi koy ñaanal yàlla na suuf sedd ci kawam yàlla xaree ko àjjana waaw boobu ba léegi nag man ni ma gisee mu jàppee doomam doom la boo xam ne mu ngi mel ni ku jóge ci biiram amul dara loo xam ne nit di nga ko defal sa doom bi nga bëgg te moom defu ko mm-hmm. amul fu mu ko yóbbuwul buy ñëw vacances moom lay àndal buy dem moom lay àndal waaw man daal loolu laa xam gis na xale bi bëgg na ko toppatoo na ko mm-hmm. ba yàggul nag toujours yàggul nag trop bi mu ñëwee wax ma ne ah wax dëgg yàlla Gilles léegi dafa dafa bëgg ñu retrouver yaayam mm-hmm. ay mbokkam naka ah lool dina xaw a jafe de ndax lii waaw ndax dafa yàgg waaw ndax dafa yàgg ma ne ko mais quand même dañuy jéem ndax ku jéemul doo am mhm. waaw dañuy jéem ba pare ñu ñaan yàlla yàlla dimbale ñu sutural ñu ba ñu retrouver ñaan yàlla tamit fekk waxtu wi bi dañu ah, ñaan leen fekk yaayam mu ngi dund mhm. waaw ba yaayam dundee wala ay mbokkam yi ku ci ci dund bu ñu expliquer histoire bi mu demee du ñàkk di nga waaw dinañ ko xam sonn na ci lool nag waaw sonn na ci loolu déplacé wu na dépensé na ci def na lu ne wax dëgg yàlla moo tax ma koy ñaanal rek coono bii mu ci dat yëpp yal nañu yàlla dimbala ñu retrouver ci ay ay mbokk xale bi. man ni ma yoree woon sama doom yi muy ñëw bëgg samay doom nag man samay doom bëgg samay doomu bopp moo bëgg leen. fu mu tourné mu ngi photo fu mu turne mu ngi yónnee fu mu tourné mu ngi yóbbu cinéma fu mu tourné wax dëgg yàlla. Mm-hmm. donc yaay bu jur doomam bëgg ko. yal ko teg ko ci yoon bëggal ko lu baax di ko digal lu baax man loolu laa xam ci digganteem ak doomam bi appel bi may lancé astu mooy jigéen jigéen rek nga mën a doon doom bi sànniwu ko ndax li kuy sànni doom dangay jor dem ci mbalit ba sànni ko mm-hmm. walla nga laxas dara nga sànni mm-hmm. waaye defar sa doom solal ko ba mu baax ak ay yéreem yore ko lu mot weer walla ñaari weer dem fi ñuy wax village SOS mm-hmm. danga xam ne village SOS mooy fu ñuy dénk xale yi kooku dafa dénkaane sànniwul li tax mu dénkaane tamit moom rek ak yàlla ñoom ñoo ko xam mm-hmm. jugé wuñu ko ndax bu ñu jugé xamuñu situation bi mu nekkoon mm-hmm. amaana situation bi mu nekkoon moo métti métti ba nga xam ne mënul mm-hmm. woon des ak doomam te loolu dafay am ba léegi day am dañ koy ñaan rek mu manifesté wu doom ji dafa ne dafa bëgg a xam rek lan moo tax moom màggul ak yaayam bi ko jur comme ñeneen ñi ni ñu màggee ak yaayam bu ko jur waaw bu mu rus bu mu ne déedéet dañ may jugé dañ may def nii voilà voilà mm-hmm. lu ñuy siwal mm-hmm. léegi nag moom comme dem nañu ba xale bi màgg na bëgg xam kuy yaayam koy ñaan yàlla pour mu manifester wu mm-hmm. di ñaan yàlla fekk mu ngi dund mu manifester wu ay mbokkam tamit bu dee xam nañu situation te moom xëy na buggul ñu xam li passé ba ndax xamuñu tey mu ngi sëy ki muy sëyal xamuñu ndax wax na ko mosoon naa am doom wala nëbb na ko kenn xamul yàlla rekk a xam waaye ak lu muy munta doon njëkkewul ci moom te du mujjee ci moom ñu koy ñaan yàlla na feeñ na feeñ mbokkam yi nañ ko feeñal nañ ko jàppale yedd ko waxtaan ak moom bu dee mu ngi ñuy dégg mbokkam bu ko dégg tamit bu mu ko jugé lu bon na dem waxtaan ak moom mu dellu si waat ba mu gis doomam mu xamante ak doomam xale bi yàgg na xam